bismillahi irrahmani irrahim ñu ngi fas yéene fàttaliwante ak yéen mbokk yu tedd yi farataay zakatul fitr wolof di ko waxe muurum koor seydna abdullah ibn abbas radiallahu tabaraka wa taala anhuma dana nettali ci xadis joo xam ne daa ko fekk ci ibnu majat abu daawud alxaakim ak ñu dut di xadis ju mu ne farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zakat alfitr yonentu alayhi salaatu wassalaam gàll na ci loosu kuy jullit farataay muurum koor moo ana yana tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam gàll ñu loolu mu ne bu njëkk ba mooy طهرة للصائم من اللغو والرفث ngir laabal kii xoor weeru koor ci bépp waxi caaxaan mbaa jëfi caaxaan gut mën na gàkkal kooram ba tee yàlla nangu ko wa tu'matan lil masakin ñaareelu raison bi mooy mu nekk leexal ñeel miskin yi ba bésu korité ñëpp duñu nekk di dund ñoom ñuy yalwaan mbaa ñuy ñàkk lu ñu dundee yonentu nag nee na fa man addaaha qabla salaati fa hiya zakat zakatum maqbula képp ku ko joxe njëkk ñuy julli julli ki iid azaka la juñ nangu wa man addaaha baada salaat fa hiya sadaqatun min as-sadaqat waaye ku ko joxee gannaaw buñ jullee nag sarax nga joxe rek waaye amoo zakatul fitr képp koo xam ne mbokk yi dégg nga yonantu sallallahu alayhi wa sallam farataal na warata am yitte judut taxawee farata jooju saadal malik yow wax nañ ne sax képp koo xam ne amuloo ko waaye soo lebee yaakaar nga ne daa am loo fayee war ngaa lépp pour mën a joxe muurum koor joxe ko sa bopp ak képp koo xam ne dundam yow la war jabar la doom la xale bi soog a juddu sax nga xam ne bés bi mujj ci koor la juddu lu jiitu jant bi di so des ko war a génneel zakatul fitr sakkaan ak ñi ko mag moo ana lu war a génnee saa ci li gën a not ci dundu dëkk bi nga dëkk saa mooy ñeenti mutt boroom xam-xami jamono danañ nattale saa ne à peu près à peu près trois kilogrammes trois kilogrammes nag nee nañ lekk rek lañ ko war a génnee waaye al ahnaaf ak lenn ci boroom xam-xam ci yeneen yi ngir d'accord nañ ci ñu génneel ko qima maanaa ñu génneel valeur bi ci xaalis boo ñëwee fu mel ni Amérique mbaa dëkk yu bari ci Occident daanaka xaalis rek la ñuy génnee am na boroom xam-xam yu ne sax dañuy xool su fekkee xaalis a gën arrangé ki nga koy jox nga jox ko ko su fekkee dund ko gën a arrangé nga jox ko ñëw yi nañ ko génnee kañ lañ ko war a génnee boroom xam-xam yi danañ wuutee waaye dëppoo nañ ci ne war nañ koo génnee balaa ñoo julli Maalik yeetu ne ko génne ci fajar gi ba ba ñuy julli mën nga koo sax génnee benn fan mbaa ñaari fan njëkk ba soo it waaye limaamu Shafii nee na bu koor gi tàmbalee rek mënees na koo génne yal na yàlla dimbale ñu ba nangul ñu suñu koor defaral ñu suñu zaahir defaral ñu suñu baatin te ni koor di def nit yal na yàlla def koor def ñu ko ci biir koor gi ak ci biti koor gi wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin